الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويق والتفهيم وله مسكن الخروج من ظلام بالنور وافي عنه كل من سلام وجعله بابا مسكن اتباعه وجل مسكن فدائي واجعل يا ربي عاب مسكني في عدنا لك وللميسني ودم داري عن الفجور والفسق والباطل في دوني وادفي الوباء والبلايا كلها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك الجلد دي mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyu ba gën a sell ci bis yu tedd yi yi nga xam ne ci jaani oto màggal te nuyu bi ñu di jiital kilifa kër gi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke di xalifam sëriñ Chouaïbou Mbacke radiyallahu anhu di ñaan mu jot leen ñu ko ba ca sëriñ Sidi ak mbooleem kilifa yi di nuyu mbooleem way teew yi kilifa yi fi teew borom xam-xam yi fi teew sàkku xam-xam yi fi teew waaye soppee xam-xam yi fi teew ñu ngi nuyu tey nag ñu bëgg a waxtaane mbir mu am solo onwaan bi di الجيل المريدي الأول كنماذج للحكم الرشيد muy titre bu am solo jëm ci mawdox bu am solo al jilul muridi al awal kon mu mel ne dañoo bëgg a waxtaane eh, suñ mag ñi jiitu woon ñi nga xam ne ñoom la Sëriñ Tuubaa njëkk a yar njëkk defar waxtaane nag def leen exemple ci atte bu jub maa nga ne ci ci yaatal ci doxalin bu jub bu la neex nga ne bonne gouvernance wala bu ay waaye bu la neex nga yaatal ko ne doxalin jub kon loolu mooy titre bi mu jëm ci muy maw dox bu am solo waaye jëm ci majaal bu am solo boo xam ne àdduna bi yitte woon nañ ko lool ndax àdduna bi dafa am lu ñu wooye xisasul najaa c'était histoire nga xam dañuy jàngat dañuy seet ñi nga xam ne ñu réussir lañ ca lañ nekk moo xam ay nit diine lañ moo xam ay nit lañ moo xam ay nit yi bu euh, am d'affaires lañ ñu jàngat seen mbir ngir bëgg caa euh, bëgg caa jariñu ndax ku ne xam ne li gën a gaaw ci réussir mbir mépp moo bëgg la ca gën a gaaw mooy nga seet koo xam ne am na ko nga jéem a xam nam def ba am am ko boo ca jaaree am ko kon buñ jël see di jàngat suñu mag ñu baax ñooñu nga xam ne Serigne tubaa daf leen yar yar leen ci alxeemal islaamiya yar leen ci jikko yi alxuraan jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar leen jikko yi gën a tedd bañ am li ñu am ndax ku ne xam na ne Serigne Touba. ci xiyam wala jikko yi nga xam daanaka yar taalibe yi eh, ak njub lu ci amoon solo la ba da ko daan ñaan sax wali xeb wali xeb adalatan bi zahiri wa batinin wala yejub bi taahiri kon béréb yëpp da ci daan ñu jël eh, jëlal ak njub ak maanute ngir mu jub te loolu buñ ko seetloo ci alxuraan buñ delloo ci sort nax nax dañuy gis sunu boroom di wax naan inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaan te lii ñuy waxtaane kenn mënu koo def te adl jiruut yow euh, muy ak muy ak njub wala wala justice wala ak njub wala ak jubal ak rafetal Sëriñ Tuubaa daan ñaan waaye di ñaan ñu mel noonu ba mu ko amee itam mu yar leen defar leen bañ mel niñ mel waliyahab bi xaq yaasin al muna bila tasalsulin wa xulil umana umana yi nga xam doon na ko ñaan ba tey suñu mag ñooñu ci lañ bokk kon euh, mawdu la boo xam ne euh, xam naa ne buñ koo dégloo bu baax siwut ko danañ ci mën a jariñ bu baax danañ ci mën a tanqe bu baax rawaata nag mu jóge ci koo xam ne conférencier boo xam ne euh, di sëriñ boo xam ne xam nañ ko bu baax xam nañ bari ci ay jaar-jaaram xam nañ ne ba mu waree jàng alxuraan dañ ko yóbbu Kër Masayar sill nga xam ne ñu yàgg te siiwoon ci njàngum alxuraan lañ mu jàng fa mokkal waaye mu dellusiwaat ci maamam Cheikh Salih Mbacke yarkat bu mag ba mu teg ko ci loxol. taalibeem di doom ju wóolu muy Cheikh Mouhamad Mountakha mu yóbbu ko ca Daaru Minam Saalum teg ko ci loxo yu wér mu jàng fa xam-xam ba ci loolu doog a fii ci kër gii di kër Serigne Chouaib bu àggale fi njàng euh, xam ba xam bañ xam ne xam na maamam Cheikh Saliou doo ko yóbbuwaat xel koom mu nekk fa di jàngale alxuraan ak xam-xam kon kooku buñ ko indee fii ngir mu waxtaan ci mag ña nga xam ne moom lu mu yàgg a dégg la waaye lu mu lu mu dund lu bari ñu di ko nettali ak leen roy rawaat na mu nekk ci ron Cheikh Salih Mbacke kooku nga xam ne xam ne lu bari ci intaaj bu mu def gis nañ ne taalif na ay téere bind na ay ay diwaan yoo xam ne mi ngi ko bind ci arab bind ay diwaan yoo xam ne mi ngi ko bind ci wolof bind ay téere ci fiqh bind ci seen eh, bind ci maam Thierno Birahim bind ci seen soile kon def na intaaj bu am solo def indiasaat bu am solo itam nag ndax itam mi ngi yor di jàngale di yare di tarbiya waaye itam nag imaam yoo xam ne boo demoon bisub ajuma ca eh, fa ñuy wax marché maam bi daaru minam de da nga fa dégg mu di fa wax ay xutba yu am solo yoo xam ne yu mat a déglu la kooku nag doon koo xam koo yaakaar naa ne kenn du ko présenté fii ndax ku ñu xam fii la ginnaaw jàngee na fi tey itam rawaat la ngir yu bari ci yoonu murit bu ñu waxtaanee xam-xam maa ngi ci waxtaanee sëriñ bi miin nañ ko fa xam nañ ko fa kon kooku yaakaar naa bu yëgee ci yoon muy se muy Cheikh Sall Cheikh Khalil Sine Khalil yaakaar naa ne buñ taatee na ci moom ci Maodo bii bëgg ñu waxtaanal ci mag ña ak ñu ñu am ay royteef ci seen doxalin ñu rafet ya yaakaar naa ne buñ taatanee danañ ci jël lu am solo danañ ci amee yóbbal bu yóbbal bu am solo boo xam ne bu ñu del delluwaat ci kër ya danañ ko yóbbaale kon duñ def loolu bàyyi nag a ah, ah, Cheikh Khalil ah, mu mu dugg ci biir eh, mawduu bi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi alladina shaadu din bokki jullit yi bokki taalibe yi ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru tedd wi weeru safar ak bis bu tedd bi ñu dëgmal muy bisu 18 safar di weeru di bisu murid yëpp di bisu màggal ñu jiital ci nuyoo bi Sëriñ Sidi Muxtaar di ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool di nuyu itam kilifa kër gi di sëriñ Cheikh na mu Mbàkke ak mbooleen njabootu sëriñ Souhaïbou di nuyu waa daayiratu Qurratul Ayni bi nga xam ne ñoo taxawal bis bi wala bis yi ci barab bi ci njiitul sëriñ Abu Mbakke kon euh, ni ko sëriñ Cheikh waxe léegi rek waxtaan yi ñu ko jëmale ci mag ñi ni ñu mën a royee ci ñoom doxalee mu jub incha allah ñu di ko tëralee ci njëkk wax maanaam makaarimul axlaaq bi nga xam ne mooy laytaay loolu euh, ci jàngalinu yonent bi wax itam sëriñ bi ni mu leen yaree ñoom ci loolu ak ni kenn ku nekk jikko ba nga ca ràññikoo nag su ko defee ñu doog ñëw xool nun waa jamono ji ñu nekk nun mën a jële ci ñoom jikko yooyu ci liñ ci war a gën a ci ñoom ci aw doxalin wu woowu sëñ bi wax léegi ñu ko xamee ñoom ñëpp kenn ku nekk am nga jikko boo ràññiku ndax ni alxuraan di tuddee yonente yi kenn ku nekk bu la tuddee wax jikko bi nga ràññiku gën cee fis waskur fi kitaabi ismail waskur fi kitaabi musa innoo kaana muxlisan waskur fi kitaabi idris innoo kaana kenn ku nekk bu la tuddee day wax jikko bi nga gën a ràññeeku mu noppi doo ko wax ne ab yonent kon loolu incha allah danañ ci bàyyi xel ci bu ñuy tudd mag kenn ku nekk la la sëriñ bi defal waaye li nga gën a ràññeeku nag nga xam ne ab école nga ci boo xam ne ku bëgg a roy man la caa roy loolu incha allah dañ ci bàyyi xel su ko defee jikko bu ñu nee jikko ju rafet walla makaarimu axlaaq mooy jikko joo xam ne day sax ci bakkanu nit ki wala ci jëmmam ba nga xam ne lu mu bëgg a def ci lu baax day yomb ci moom du am benn takkalu du am benn coono loolu nag ñaari façon la ñuy jàngale ilmul axlaaq dañuy wax ne jikko joo xam ne tabiiya la maanaam nga xam ne da nga ko dañu yàlla da ko mooñee nga judduwaale ko ak joo xam ne euh, maanaam melowoo ni waaye yaa def say góorgóorlu ba jikkowoo ko ba mu sax ci yow su ko defee mu doon gàttal rek mooy jikko jëpp jikko ju baax daal joo xam ne des koy taggee nit loolu mooy makarimul axlaaq moo xam tabe la moo xam woyof moo xam am kersa moo xam wér ci ci ci ci say jëflante ak nit ñi lewet yërmande sutura muñ muy gudd gudd yoo xam ne bu ci nekk euh, bu ko nit ku jikkoo ba mu ci moom ñu ne am na makaarimul axlaaq su ko defee yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag moom day mel ne mission bi ko tax a jóg mooy loolu mooy jikko yi yu baax yooyu euh, ñi ko jiitu woon am na luñ ci jëtu na jëbbat ci ñoom ba mu sax ci ñoom waaye am lu manqué nag mu ñëw na ngir bëgg complété jikko yépp moo tax mu ne innama bu'ithtu li utammima makaarimal axlaaq laaj nañ ko benn bis mu yonent bi nekkoon ko li gën a mën a gaaw a tabal nit àjjana lan la mu ne taqwallah wa xusnul xuluq mooy ragal yàlla ak rafet jikko mu ne inna min ahabikum ilaya wa aqrabikum minni majlisan yowma alqiyaamati ahasinukum axlaaqan bu ëllëgee yowmal xiyaam ñi gën a mën ñi gën a ñi may gën a jege ci jotaay mooy ñi gën a rafet jikko fii ci àdduna maa min cheyin fi l misaani asqalu min xusnil xuluq nee foofu ñuy teg jëf yi di ko peese lu fa gën mën a diisal balance ci jikko ju rafet nee na amul inna rajula la yudriku bi xusni xulqihi darajata saaimil qaayim nit de da gis kuy fanaanee naafila di dëkki koor waaye kee gën koo rafet jikko dab ko wala mu raw ko sax kon xusnul xuluq wa xusnul jiwaari yaamuraani daara wa yazidaani fil umr rawaahu ahmad loolu yént bi ko wax nee na jikko ju rafet ak dëkkandoo bu rafet bokk na ci li nga xam ne day dundal kër di euh, yokk ak dund loolu ku ne xam ne ne kër koo xam ne ñi ci ña ko séq seeni jikko rafetul su yàggee maanaam kenn ku nekk da nga toxu dem feneen su ko defee kër gàddaay loolu rek mën na ko daal di firi ci saasu euh, mu dellu wax moom moom yonent bi ne inna allaha taala qasama baynakum axlaaqakum kama qasama baynakum arzaqakum rawahu ahmad wal bayhaqi nee na yàlla dafa séddale seeni jikko jikko yu baax yi ngeen di am daf leen ko séddale ni mu leen séddalee wërsëg yi nit ki mën naa am jikko bu baax euh, boo xam ne kee xaj na baax am na jikko waaye amul ki ki na ko beneen maanaam ni ngi ni ñu ni ñu ni ñu ni ñuy ëppalante ay wërsëg ni la gënante ci jikko yi kenn ku nekk am nga loo baax li loo xam ne yaa ko gëne sa morom donte moom itam am na lum moo tax kon kenn warul xeeb sa morom ndax jikko boo baaxle rek man na am beneen boo xam ne manqué le nga ko te koo ko baaxle ko léeg-léeg gis nit ku mën a jaamu yàlla lool waaye suñ doon laaj xaalis du mën a joxe wala koo xam ne day am xam-xam lool yëg boppam wala koo xam ne fu mu toll mu ngi yor jikki bi di jàng waaye fu ñu tuddee nit mu jëw ko gis koo xam ne yooyu yëpp du ko def waaye du jëw loolu jikko la yoo xam ne yàlla moo koy séddalee noonu ci kenn ku nekk ak li nga xam ne moom moom la yàlla sédd ci jikko yu baax ba ci sax ñi jiitoon jikko yu baax yi dañ ci daan am gis nga Ibrahima kii Abraha moom mu doon toj kaaba gi ñi xam jikkoom dañuy wax ne ku lewet la woon te xam nga lewet ci jikko yu baax yi la bokk Muusa euh, euh, nu mu tuddati na dafa mënoon a euh, fonk ay waajuram lool te birrul waalidayni mu topp leen ak fonk leen ku ne xam na ni mu toll ci lislaam te ñoom ñooñu ay yéefar la woon moo tax kon kenn ku nekk jikko jëga baax le nga sante ko yàlla waaye keneen ku nekk ci safaan itam boo ko seetantalee xam ne léeg-léeg am lu la jafe lool ci lu baax te yomb ko moom moo tax kon suñ bay jaxte waxoon ne ku jàng ku jàng-jàng ba xam mbooleem araf yi nu gis na sant yàlla te bu tax muy xasit ku xamul hmm. yàlla xamal ku fi xam yàlla amal ku fi am moo sàkk ndab yi def yiw sàkk ndab yi deful yàlla fi teg ndab yi moo tax lépp ndab lu nu gis nan koy teral ngir boroomam nun nun te buñ ko bonal ab lar nu muy dofe bay xeebi kemam kuy xeeb kuy xeebu nit xamagul kuy rëyru liit rëyagul ku rëy du rëylu ku am xam-xam du xeebi kemam baa kon nga xam ne dafay saf waaju xam te xamul yàllaa jegoo rëy te waaju rëy mu dal di alak seytaane xam ne na rëy baaxul ne moo ko bonal kon loolu ku ko xamee noonu bu doo xeet kenn doo jàpp ne itam yaa gën kenn ci genn wet kon daal jikko ju baax mooy li nga xam ne nit ki ci lay jóge ci niveau bàyyi na jëm ba àgg ci euh, mustawa mala malaayika ci la nit di ràññikoo ci moroom ci la nit di gëne la bilan mi wa diini yakkoonu yaa fata waxalam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira noonu ko sëriñ bi waxee nit ñi li ñuy rawante mooy li nga xam ci lu baax di ko jëfee ba mu sax ci sa xol di jikko ju baax ci yow loolu koo gën ci loolu nga koy gëne moo tax kon euh, sëriñ bay jaxate ne amub yaray tax ñu fopp ak nit ñu tegg ci kaw ko bu yaray tax ñu teggee nit ci kaw di ko cal lu waaye am ci lu baax ci jikko ju baax nga ko amee waaye lu lu lu dal nit cib safaan ci jikko joo xam ne ju yàqu la ci la ko euh, dale su ko defee <clears throat> sëriñ Tuubaa anhu mag ñi nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaane nga xam ne moo leen yar def ci ñoom jikko yooyu moom sëriñ bi <clears throat> bi mu ñëwee dafa jël ñaar yu am solo mooy dafa dafa xool àdduna gis ne ñaar yàlla ñaar rek la am ci àdduna muy li mu wax ak li mu jëf li mu wax li ci gën a rëy mooy alxuraan li mu jëf li ci gën a tedd euh, mooy nit wala xadd karam naa bani aadama mboolem càkkteef yi yi mu def ci àdduna yëpp nit yi ci gën a tedd nit yi ci gën a rëy mboolem li mu wax lépp ci ay téere yi jiitu alxuraan yi ci gën a tedd mu jël alxuraan nag liggéeyale ci yàlla ci nit ñi maanaam defare ci nit ñi àgg ak ci maanaam ñooñu mu mu yar mu àgg ak ñoom ci <clears throat> maanaam day niveau bu kawe euh, ba sëriñ Mbàkke Buso radiyallaahu anhu def leen ñetti xaaj ñoom ñoo ñu toppoon sëñ bi wax xaaj bu njëkk bi mooy ñu njëkk a jaayanteeg moom ni ñu mel ak ni ñu kawee ci ay jikko bu wax ne moom gisul ñu mel ni ñoom loolu ndax bi ñuy taqoo ak sëriñ bi booba jot gi sëriñ bi am ak liggéey yi mu leen di defloo ak taqoo gi tax na nee na ñaareelu groupe bi ak ñetteelu groupe bi ñoom ñëpp jàmbaar lañ waaye àgguñu ci niveau bi nga xam ne groupe bu njëkk bi te mooy ñi jébbal ci moom ci Mbàkke Kajoor àgg foofu loolu itam di alxuraan ji mu jël liggéeyale ko ci yàlla jël ci mbootum alxuraan xasida yi eh, jox ko ko muy taalif yoo xam ne daf ko fi bàyyi mu mu mu di ko wuutu ci tarbiya nit ñi nga xam ne kon li mu fi bàyyi moom sëriñ bi bi mu fi bi mu fi jógee euh, ñu mu di ko wuutu ci defar gi mu doon defar nit ñi mooy nit ñi mu defar ak al euh, euh, xasida yi nga xam ne génne ne ko ci alxuraan nga xam ne kon ni mu ko waxee yaqudu xatiyal murid lil xaadiril baaxil murid mu zax si xan ku la ma rek laa si waa muallim nga xam ne kon euh, bokk na ci li mu fi bàyyi ci liy continuer di di defar nit muy xasida waaye itam nit ñi mu defaroon ñoom ñu continuer di defaree ndax ñoom def leen waajoon ngir loolu ñi mu waxoon ka ko doon sàkku ci moom mu defar ko mu ne ko bàlle faal defar naa ko kon ñoom ni ma ko gàttale rek ci ma ko doon gàttal jël na li gën a rëy ci wax yàlla liggéeyal ci li gën a rëy ci jëfi yàlla ñaar yooyee nag yàlla lu ci nekk mu bàyyil ko ko fi mu continuer di ko wutu ca liggéey ca defar googu moo tax ñoom ñoo ñooñu mu defar euh, ñu doon ñu kiimaane ñu ràññiku ci jikko yu rafet nga xam ne day mel ni sëriñ bi ci ñoom la dévier mbooleem ñi mu jamonanteel defar ñoo xam ne kenn mënul defar ñu jube noonu moo tax sëñ Musaa Ka ne ku weddi ba tax mu bëgg ne maye moroomam na def li mu def te wax li mu wax boroomam te seexal kem li seex yi Bàmba seexal te sellal seeni jëf ba ñu xam boroomam te sàkkal leen mbooloo faw yuy jëf te tàggat leen ba duñ mën a may boroomam lépp ay jikko yu baax te kat na saxal liggéeyal ngën ji yónneen te bu muy nelaw te te te bu mu tee muy taxaw faratay te bu mu yuqat te bu mu jënnal la muy jëf te bu mu njistal ci jëf na ragal boroomam te bu mu diiŋat sëriñ si te bu mu fayontoo te bu mu bëgg ngir ku koy gottil boroom moroom te bu mu xas nit te bu mu jëw bu mu rambaajit te bu mu fen bu mu dowut bokk ak moroom takkat na saxal jixaari bakkan ci boppam te muñ tiis ak naqar te ragal boroomam te day xam mbóoti xol xam baatinu nit di saafara ràggi xol di xalam boromam te bu mu diglee ko aaye ci wàllu bakkan di woote ca kaw di biir ba gisul boromam yooyu ay jikko la yoo xam ne eh, sëriñ bi radiyallahu anhu yare na ko mm, taalibe yi mu àndaloon ba kenn ku nekk ràññiku ci doon ci école boo xam ne mën nga doy nga ci ci am jàngale ñoom ñoo ñoom la sëriñ bi di def euh, tawriya ci muqal bu kaa di wax ne naaloo bi xafi lazi jaa al aminu bihi alay minhu salaati kulla saaxaat ñoom de topp gi ñu toppoon borom yonente bi di ko xej ca lañ amee euh, euh, lu lu lu lu rëy rëy minal manaqibi maa laa yaxtawi qalamun wala lisaanun bi xattin aw xikaayaat ca lañ amee ngëneel yoo xam ne mëneesu ko wax ci làmmiñ mëneesu ko bind ci minha tawaqufu an ilmin wa an amalin na sayihatin sayihan bi mën a doon balañ caa dugg wala ñu tabbi ca danañu xam maanaam la ca yàlla àtte du ca dugg minha talaazumu xab min nafsi doona riyan min kawniha zaata makrin wal xiyaanaati bokk na ci seeni jikko fu ñu toll dañuy tàggat seen bakkan tàggat goo xam ne duñ ci jub nu gistal waaye def ko ngir yàlla rek ngir ko ba li leen suñu boroom sant ñu mën koy def yaraw na anfusahum doonal wara abadan wa na annahum lam yaliqo bil karamaati ñoom jamono bu nekk dañuy jàpp ne ñoo gën a suufee ñëpp maanaam jàpp nañ ne sax ñoom bu ñu leen di waxal ay karaama dañuy def ne loolu yelloo wuñ ko ndax jàpp nañ ne nekkuñu ci dara loolu muy jikko yu nit ku baax nga xam ne yow lii leen nit ñi tagge ñoom ñoo koy gis waaye yow doo ko gis lii mel mag waxoon ne yàlla ba lay takkal ab garaat daf koy takk ci sa ginnaaw nga xam ne nit ñi ñoo koy gis waaye yow doo ko gis àdduna nag ba lay takkal ab garaat ci sa dënn la koy takk moo tax ngay gaaw a gis sa bopp minha talaazumu sabrin lil ilaahi ala jawril xonzaati jamian wal musibaati bokk na ci seen gëneel yooyu fu ñu toll dañuy muñ bu ñu dajee ku ku ku ku leen di jalgati wala ku leen def lu noonu itam day mel ni ñu moom seen bopp ba duñ fayantu minha tawaatuhu lil qahaari malikihim wa sidq wa zuhd <coughs> maxtatiiri afaati ak woy far seen bopp fu ñu toll dëggu ak dëddu àdduna ci mboolem lu mën a doon al ilmu siimatuhum wal xilmu daydanuhum doona dahaawi wa inkaari al xam-xam moom nga leen di ràññalee koo ci gis fees dell ak xam-xam waaye lawet ba ne doom euh, te du ñu wootewu mukk du ñu weddi itam ay karaama du ñu woote ay karaama duñ ko ay maqaama duñ ko weddi ndax ñaare foo fekk kuy wootewu rek bu buñ nee diw am na nangam itam moom moo koy wëlbati ko weddiwaat ko ba tax na kon ñoom ñaar yooyu yëpp muy woote lu nekkul ci ñoom ak ku yàlla may ñu di ko weddi yooyu yëpp yàlla defoon na ñu mucc ci xam naa lu ñu waajaloon waajal bu gudd la sax waaye comme day mel ni li ci gën a am solo mooy li ñu mën a jàngate ci ñoom ci jamono bii ñu toll ñoom mag ñooñu euh, loolu day mel ni ci la mawdoo bi gën a jëm mu mel ne fii ñu toll ci jamono bi ñu toll am na juróom benni tomb yoo xam ne ñu ngi koy dund ñu ngi koy dund nga xam ne soo doon déglu télé euh, rajo yi wala ngay seetaan télévision yi xeeti baat yooyu da koy gis lu bare bare bari ñu di ko jëfandikoo di ko di ko di ko di ko muy muy muy doon lu lu yaatu bokk na ci yooyu rek li ñuy wax jihadiste ab jihadiste xam nga jihad moom mujaahid lañ xam noonu waaye jihadiste jihadiste da nga koy dégg lu bare bare léegi mu mel ne tasaaroo na léegi di lu jaaxal tubaab yi lool ak sax waa réew mi waaye loolu sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu teeloon na cee joxe ay solution ndax moom li mu jàpp yow mi jug di jihaad ngir am ñoo xam ne dangaa gis ay gàkk ci ñoom bala ngaa jug bay dem xoolal sa bopp ba xam notagul nga sa sa noon yi nga xam ne ñoo ne ci sa biir doo ko dem jihaat ak noonu yooyu ngay jihaat loolu di lu am solo mooy tàggat sa bopp ba ba ba tàggatu doo ko tàggat keneen am na koo xam ne bi mu ko yebal euh, ci dëkk ba mu ko yebal daf ko ne boo demee bul tàggat nit bul tàggat nit ñi tàggatal sa bopp soo tàggatee sa bopp ba moom sa bopp nit ñi dañuy tàggat topp ci sa ginnaaw moo tax kon ñoom ñu baree bari ñuy def jihaad suñu nootoon seen seen bakkan bari na lu leen naqari loo xam ne man man mën naa bañ a àgg foofu ñu koy euh, def noonu waaw ndax bari na foo xam ne ñoom xat nañ fa te ñeneen ñuy jullit ni ñoom yaatu fa te même diine bi ñuy réclamer bu benn la kon nañu koy jëfandikoo ak la la la la la la lam laaj dëgg-dëgg moom lañ jëfut moo tax euh, loo loolee ñu nekk noonu moo tax kon sëriñ bi ne su ma isa uttum ilal jihaadi fa qaddimoo daalan min al aadi wa huwa la amri al jihaadul akbaru kama bihi anhum ataana al xabaru su ngeen demee bay jihaati am na ñeenti noonu yoo xam ne ñu ngi seen biir lijjanti leen ba daan leen doog a dem jihaata ku ngeen di jihaata nafsan wa dunyan suma seytaanu lahin hawan fa kulluha aduwun laa yarin bakkan a ngi ci sa biir àdduna gi mi ngi la wër seytaane ngi ci sa biir bànneex mi ngi ci sa biir te ñoom ñooñu kenn ku nekk noonu la boo xam ne jamono bu ne mu ngi taxaw yow ñooñu fexeel ba not leen doogo doogo euh, noti keneen koy not daane lil kulli sijjunun wa silaahun minhuma fa adxiloo wa kassiroo fa taslamoo ñeenti noonu yooyu kenn ku ne ci ñoom am na ngànnaay looy xeexee ak nit ki waaye nag am na kaso boo xam ne it boo ko jekkoo yow ca nga a dugal kon fexeel ba ngànnaay lim lay xeexee nga damm ko te boo ko jekkoo moom nga dugal ko ci kaso boobu moo tax foofu itam di foo xam ne lu lu lu mat a bàyyi xel na ndax ñeenti noonu yi ñu wax léegi euh, muy bakkan bànneex àdduna seytaane kenn wuru leen a rey waaw des leen a wara dugal cib kaso boo gisee yenn ci suuf yi ñu di leen dëkkal fenn bi naan dañoo dañuy daw responsabilité dëkk ci jàkk yi parce que dañoo dañoo dañoo rey maanaam euh, noonu yooyu te waruñu leen rey waaw dañoo rey bakkan rey bànneex rey rey rey àdduna seytaane moom mu ne su ko rey waaye ñoom ñooñu ñu def dañ leen a rey boo leen reyee nag day mel ne bokkutoo ci àdduna léegi te kenn ku ne si ñoom am nga njariñ loo xam ne mën nga koo mën nga koo jariñoo ko sëriñ bi joxe na ci ay misaal yu bare bare bare ndax lim ne qahartali nafsi qahartali hawaay wa so wal idlaal suqtali siwaay min ka tazawudi ilal jannaati bima li yaxtarta min al minnati mu ne yàlla natal nga ma sama bakkan bakkan ana lan mooy li muy lore mooy ne nafsa la amaaratun bi soo moo tax ne wa soo sama bànneex natal nga ma ko bànneex ci lu mu daan jëme ki al wal idlaala kon dàqal nga ma ko muy réeral kon euh, te bakkan su fekkee mu ngi jëm ci lu ci lu yàlla bëgg kooku njariñ la bànneex bu fekkee mu ngi jàng jëm ci lu yàlla bëgg kooku yaa ngi koy jariñoo feneen moo tax kon mu xam le ne su leen a rey ñoom ñooñu waaye def si leen daf def si leen a war a euh, fexe ba tàggat leen ba ñu topp la maanaam di di di di di di la dimbali ci jaamu yàlla ngay jaamu yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa laa yuminu ahadukum xataa yakun xawa taabian li ma jiitu bi kenn kenn ci yéen ngëmam du mat li fekk bànnee xam dafa topp li nga xam ne moom laay indi te mooy lislaam léegi kon bànneex am na am na lu muy mën nañ koo wër tàggat ba muy topp leneen lu bokkut ak lu lu lu lu baax moo tax kon foofu di lu am solo loo xam ne ñi nga xam ne ñooy jihaat di euh, di ko teg ci ay pas-pas dëgg la euh, am nañ pas-pas am nañ yéene waaye itam nag euh, pas ak yéene ju daa war a am cislaay lu lu lu lu lu mu tëdd mu tax na kon ñu bàyyi xel ne bu ñu delluwaatee ci njàngaleem sëriñ bi daal Euh, da ngay not sa bakkan euh, not sa bànneex not euh, dëggu àdduna doog a doog doon koo xam ne nag dangay ngay jub pour pour pour dugal nit ñi ci ci ci li nga nekk yow waaw bala ngaa dugal nit ñi ci li nga nekk yow fi xel ba yow nga nekk ci ko noppi moo tax kon loolu ñiy def loolu nañu bàyyi xel nañu xool ba xam not nañu seen bakkan ba xam ni ñu mel ni yàlla bëgg ñu mel mel nañ ni ba noppi doog cee dugal ñeneen ñi am na baat boo xam ne itam dañ koy dégg lu bare bari ñu di ko wax muy transhumance transhumance arab ñi koy wax al intijaa al intijaa mooy mànkaan day mel ni baat bi ci wolof loolu lay tekki maanaam koo xam ne daal mu gis ñax mu sëq mu dem fa ñax ma woowee wala mu jeex mu dem feneen loolu mooy ñi nga xam ne dañoo bokkoon ay xalaat bokk parti buñ ñu nekk wala ñooña la maslaxa yi ñu doon gis gisatuñ ko ñu gàddaay yi dem feneen loolu yi di doonte euh, xaj na am na ñoo xam ne seeni gis-gis may na leen loolu waaye suñu delloo noonu ci njàngaleem daara yi sëriñ bi loolu lu lu lu rafet ci noonu ndax day mel ni weddi sa bopp lay doonat gëm nga lii bokk ak moom gis-gis ba mu yàgg nga jékki-jékki euh, dellu ginnaaw loolu loolu loolu lu rafet ci gis-gisu ndaare sëñ noonu nag fi ñu koy delloo mooy sëriñ Mandoumbe radiyallahu anhu keroog bi sëriñ bi euh, nekk ci géej gi dañu annoncé ne ne wàcc na liggéey booba bari na ñoo xam ne dellu nañ ginnaaw ñu ngi waaj a dellu ginnaaw boobu waaye moom moo jógoon di di di di di di delloosi ñi doon xalaata génn tarixa bi di leen xamal ne ànd boo xam ne yàllaa ko lal wërti jeexe ci façon bi waaw nun su su loolu amoon itam suñ ngor wuru may nu ànd ak moom ba fii ñu toll ñu bàyyi ko di di dem ci ci yeneen tarixa wala yu mel loolu kon foofu transhumance loolu bu ñu delloo ci fii mag ñi royteef lañ ci dañu gisit dégg ba lu bare bari ñuy wax enrichissement illicite mooy amin woo xam ne teguwul ci yoon amin wu teguwul ci yoon loolu danaa jël ñaari mag ñoo xam ne suñu leen jëloon def leen royukaay nit mën naa nekk am ministre walla mu nekk député walla bu nekk lu mën a doon nangami at yi at yi at su wàccee dis ko gëstu ba gis ci moom benn dërëm boo xam ne du du du bu léwul dinaa jël misaal ci maam Thierno radiyallahu bi sëriñ bi eh, ju jógee ci géej gi nga xam ne bagage yi mu ko dénkoon même ataaya ji mujjee ataaya sax maanaam mbuum maag suukar saag yi fa mu ko bàyyi woon noonu la ko bàyyi ba noonu la ko fekkaat benn benn dërëm wala lenn loo xam ne ci ay bagage yu mu ko dénkoon fekk naa dara sotti ko ci amu ci kooku yaakaar naa ku ko dénkoon am réew itam mm, non euh, lu sedd sa xol rek nga ci dinaa jëlit misaal ci sëriñ Saalihu radiyallahu anhu nga xam ne li ko daan dikkal ci ci ci ci ci alal euh, am na ci loo xam ne dafa jàpp ne ci ci alali sëriñ Tuubaa la waaw nga xam ne yoo xam ne moom bu ñëwee du ko jëfandikoo da nga gis dongo daa dongo bu jóge ci daara ja am lu muy jënd ci dëkk bi mu war ko jox xaalis dana fi toog ay fan léeg-léeg du ko jox du am lu ko jox ndax yi yi yim yim yim yim yim fi fekk day jàpp ne loola waru cee taf tasaruf moom waaye yi fi sëñ Tuubaa loolu loolu loo xam ne sax lu mu lu mu lu lu lu luñ ko obligé la waaye moom damiram moo ko moo ko dicté mu mu jàpp ne noonu la demee kon loolu itam di loo xam ne euh, euh, euh, royteefu rëy rëy la ci ku ñu dénk loo xam ne moomoo ko ndax moom donte moo ko moom itam waaye damiram jàpp na ne lii moomu ko ku ñu dénk loo xam ne moomoo ko kon boo jëlee sëriñ Saliou def ko royukaay ci loolu lu bare bare bari ci ay jalgati mën naa mën naa bañ a am ci lañ dénk waaw loolu misaal moo moo moo moo moo moo leer kon nañu jël mag ñi def leen royukaay ci sàmm alal joo lépp lu ñu la dénk ak loo ko jekku-jekku ak loo ci mën a jalgati te nit gisul yàlla mi nga xam ne moo la tiim di gis lépp soo ko jëlee mu nekk ki lay audité doo doo jalgati mukk su jëlee itam mel na ni euh, grève yi bari na lool ci jamono yi université yi école yi euh, lise yi professeurs yi grève étudiants yi grève loolu yooyu yëpp di yoo xam ne suñu delloo woon ci njàngaleem sëriñ bi moom day jàpp ne dong bi jàng moom daa war a xam ne li muy def ak tumuraanke ñoo war a ànd moo tax moom daa jàpp ne ab donga bi sàkk xam-xam dafa war a tumuraanke ak nu mu mën a demee nag daa war a tumuraanke moo tax mu bind ak xasi xasida goo xam ne kun kaatiman li durri wal buusa tanal xasdan wa tanalul jii la yaa mu taxalimu li ci li ci dénk maam Cerno ni mu war a comporté woo dig diggante bi nga xam ne ci lay sàkku xam-xam xamal ko ne ko wërsëg wala xiif wala yooyu yëpp moom la jaaxal waaye da ngay dem ba mujj waxuma la étudiant mais ñi ñiy jàngale ëpp ay jàmbat ñi ñiy jàngal loolu itam yaakaar naa ne bu ñu dellusee ci daara yi sëriñ bi loolu dana am luñ ci mën a euh, roye bi ci dolliku mooy li ñuy wax népotisme népotisme loolu yi daa mel ni baat bu bari lu ñu loo xam ne doon nañ ko jëfandikoo ci euh, ay jamono xam nga day mel ni jamono bu nekk rek day am ay baat yu jekki-jekki di génn yoo xam ne xaj na ay jikkoo koy génne wala ay doxalin népotisme wala arab di ko wax muhabatul aqriba maanaam nga xam ne yow dañ laa teg ci bopp dara nga jël say mbokk ak say jegeñaale euh, bokk ak ñoom loola bàyyi jàmbur yi loolu itam lu lu mat a bàyyi xel euh, loolu ki ma ci njëkk jël royukaay mooy Cheikhuna Ahmadul Xadim radiyallahu anhu keroog ci Jolof bi mu dajalee Sëriñ Fàllu xamal leen ne lii ma yor kat ma ko dañ may séddale kon li fi maye dara du ak mbokk goo xam ne ngeen mbokk ak man la wane ne amul doom amul rak amul jarbaat kon foofu népotisme dàqu na moom li mu yor dañ ko koy séddaleloo kon ki nga xam ne moo jaar fi nga war a jaar mooy am ci ci ci séddale kooku yaakaar naa ku ko dénkoon àdduna bi yëpp itam wala maanaam ki ñu ki ñu dénkum réew wala ki ñu dénk lu mën a doon su jëlee kooku def ko royukaay du jiital ay mbokkam wala ay jege ñaaleem ci ci loolu ñu ko dénk bokk na ci lii gën a de loolu rek sëriñ Tuubaa radiyallaahu law nii nga xam ne tarixa murid bi boo xoolaan taalibe yi ñi ci seen sëriñ sant santul Mbàkke ñoo ëpp ñu sëriñ sant seen sëriñ sant Mbàkke kon moom li mu yoroon bu doon da koy séddale ngirum mbokk kon ñi seen sëriñ sant mbàkke ñooy ëpp waaye soo xooloon yoon yi fi mu ne ñi seen sëriñ santul mbàkke ñoo ëpp ñi seen sëriñ sant mbàkke loolu li muy tekk mooy li mu yoroon moomu ko dañ ko doon séddaloo euh, bokk na ci ki muy jël misaal sëriñ Mahamadul Fadil radiyallahu anhu wax nañ ne bi bi muy ci ak mujjëm Euh, dafa yebal sëriñ Abdou Lahad radiyallahu anhu ngir mu def tournée ci ci réew mi wax nañu dafa am ku ko ne te ngaa yebaloon sëñ Mourou Bousso Dieng mu ne leen cere jàmbur du ko tamal sama doom loolu royukaay bu mag a mag la ci ki ñu dénk fi jàmbur mu xam ne doonut loo xam ne da ko war a bokk ak ay mbokkam mbàyyi jàmbur waaw loolu sëñ sëñ Fallou joxe na misaal mu rëy rëy kon ci népotisme Omar ibn al-As radiyallahu keroog bi nga xamee ne am na doom bu doon xeex ak benn copte ci Égypte mu saaga ko mu fay mu dóor ko keroog bi ko euh, Omar ibn al-Khattab woo ko ba mu ñëw mu ne ko fayu mu mu mu sëggal te Omar ibn boobu mooy gouverneur foofu bi nekk Égypte bi mooy kilifa gu mag bi waaye doom ji bi mu ñëwee ko ne sëggal mu sëgg mu ne copte bi fayul mu fayul mu ne mata euh, tastaabidoona naasa waqad waladatuhum ummahatuhum ahraran kañ ngeen di bëgg jàppee ni ñu ay jaam te seeni yaay ñu leen di jur ñu ay góor piir loolu di di lu am solo bokk na ci baat yooyu nga xam ne day jékki-jékki rek feeñ impunité impunité mooy lu la neex def te dara du la ci fekk loolu itam dinaa ci joxe sëriñ Saalihu radiyallahu anhu ku fonkoon maanaam euh, maanaam euh, tënku ci ci ci ci luwaay réew ci luwaay réew bari na lu daan xew loo xam ne moom balaa police ñëw mooy woyu police fàttaliku naa boo xam ne ci ñi yor tracteur yi ci ci daara ji am ci koo xam ne dafa dafa dafa fiir ak gone mu gaañu mu faatu te tayu ko maanaam ak njo ak njuumte la waaye moom moo wax ne nañ nañ ko dem nañ wax police mu jël si ki fiir euh, xale bi ngir rek loolu xam nga fi la fi la loolu ko kon nga xam ne bi ñu ñëwee bi ñu ko yóbboo xool xam ne lii du ñoo ko dellu si waatal seen bopp waaye foofu li ma bi bëgg a wax rek maanaam mooy mën a am bu bu bu bu téye woon waa ji bañ nëbb ko ba caa wax dara itam du yàgg yàgg ñoom bañ ñëw di ci def enquête la ñu def dara kon impunité euh, ñi koy wax ak di ci wootewu loolu moom Euh, ab ab ab jàngalekaay bu bu rëy la ci fi nga xam ne fi lay jaaxale nag mooy jéggale jéggale loolu itam di lu am solo loo xam ne lu ñu war bi jàng ci daara yi mag ñi la wa in taxfu wa tasfahu wa taxfiru fa inna laa xafurun rahim ngeen jéggalee de yàlla moo leen dàq jéggale ni ngeen jéggalee ñi séq ñu ngeen seqal aw ay wala ñu ngeen seqal lu ngeen war a fay loo jégal leen yàlla itam noonu la mën a jégale ala tuhibuuna an yaxfira allahu moo tax sëriñ bi tubaab yi téye ko juróom-ñetti at xañ ko ay liggéey yim yim doon def ci liñ lépp ba noppi bi mu ñëwee mu wëlbatikuwaat jéggal leen loolu de yaakaar naa ne fi ak baax mën a yem am na lu xewoon gànnaar loo xam ne itam misaal mu rëy la ci te mooy naar boobu ñëwoon ma naar la xuma lu mu doon waaye gàddu jaasi ji bëgg koo faagaagal te <coughs> euh, <coughs> biñ ko yëgee ba téye ko mu ne yóbbuleen ko ba ci camp bi ci wet bi ngeen jébbal ko ñooñu loolu yaakaar naa ne su doon kuy fayantoo foofu lay bàyyi taalibe yi ñu ray ko waaye daf ne bu ko kenn def dara waaye waa ji ci loolu bu sëñ bi ñibbisi ba nekk njaareem mu ñëwati fi fekk sëñ bi njaareem ñi ñi xànnee ko bëgg koo faagaagal <coughs> waaye dafa génn ci digg bëccëg gi ne ba kenn def dara ala tuhibbuna an yaghfira allahu lakum loolu di lu am solo loo xam ne war nañ koo roye ci ñoom li may jaaxale rek mooy wàllu jégle googu dafa am benn euh, ci taalibe yi koo xam ne nee na damay dox ci àll bi ba mu yàgg ma gis ak lëg gu taxaw ma ne waaw lëg gi xanaa daal di daal di koy jàpp nga xam naa lëg gi daal ñàkkul lum làmboo nee na jàpp lëg gi indi ko ci sëñ bi nee na mu fekk sëñ bi di waxtaan waaye bi ko gisee ne dafa mel dafa jaaxle daal ni indi indi gaaw nee na mu ma indi mu ne lëg gi dafa am lu ko yàlla may loo xam ne moom sëriñ bi ci lëg gi la ko la ko la ko feeñal muy al arnabu maanaam araf yi li muy wund lu ci nekk dafa am loo xam ne yàlla daf ko cee defal sëñ bi bi mu ko leeralee ba nag daal ne waa ji demal nga delloo ko fa nga ko jële <coughs> su ko defee nag ni nga xamee ne bu la say noon jekk woon ni nga bëgg ñu def la ko boo demee lëg yi def ko noonu ni la boo xamee ne say noon jekk woon nañ la ni nga bëgg say noon def la ko boo demee def ko lëg nee na ma téyewaat lëg ndànk dem ba ma ko jële fa ma ko jële woon ma teg ko waaye nee na bi ma ko tegee daal dafa mel ni ak fett rek daal di daal di daw génn foofu li ñu fi jàngate mooy bi nga jekkoo sab noon ni nga ni nga ni nga ko ni nga ko jekkoo euh, nga xam ne lu la neex mën nga ko def bàyyil xel ne yàlla moo la gën a jekku ni nga jekkoo sa noonu te ëllëg yi si biir noonu nga jekkoo sa noonu des na la jekkoo loolu kon képp ku jekku mën a jekkali na bàyyi xel buñ ko jekkoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ jërëjëf ñuy sant bu baax ci ni nga doxale waxtaan wi ndax li ñuy wax asaara da ngay feeñ dafa am originalité ndax ni ko doxale yaakaar naa ne ñu fi toog kenn séntoo ko woon noonu ne noonu doxale ndax li ci gën a am solo mooy dañu jukkil tomb yi gën a soxla yi nga xam ne jamono da soxla misaal ko ci mag ñi kon loolu la am solo la kon ginnaaw bi nuyoo njabootu sëñ Muudu eh, Asta Njaxate mi fi teew nga xam ne daanaka ñëpp ci mbooloo bi ci lañ bokk ah di leen nuyu bu baax di bëgg seen teewaay waa daayira Xuratul Ayn di bëgg ci ñoom bu baax seen teewaay ñu ngi dellusi rek gàttal ci point yi nga xam ne bala ñoo jox ñi nga bokk yi nga xam ne ginnaaw bi nañ wax seen tur ndax ñu bàyyi ko xel ndax ginnaaw euh, sëñ Soy bu keneen lañ bëgg mu sànni ci kàddoom euh, euh, waaw waaw mhm. waaye ñu tënk tuuti ci li nga xam ne sëriñ Xalil andi na ko ndax ñi nga xam ne fekki wuñ ko woon te la am solo ndax ni mu indee baat boo xam dafa xew ci jamono ji te doon loo xam ne mi ngi ay jullit a koy def ñoo xam ne dañu war na ay jullit lañ di faagaal seen mbokk jullit te teg ko ci pas-pas jàpp ne dañuy liggéey lislaam muy ñu leen tudde ay jihaad yi kon day mel ne war nañoo jéego ay jéego ci wàllu googu ndax koo ci gis rek euh, taalif na ci lu dul jeex ñii taalif nañ ci euh, euh, maanaam funuun yu xam-xam yi am yépp taalif nañ ci mag ñi taalif nañ ci waaye dañoo def ay ijtihaadaat ci yeneen xam-xam génne ay ay bees bees ci xam-xam yeneen yoo xam ne Euh, jël xam jëm jël jël jël xam-xam itam andi ko ci làkk yi nga xam ne moom lañ moom def ko ci ba yombal xam-xam euh, sotti ci lu bëri ñenn ñi di ay waykat way ci lu bëree bari yooyu yëpp ba léegi jamono ju ñu toll benn yëngu yëngu bu jëm ci wàllu googu fi mu ne nii gisatuñ ko yooyu yu ñu war a roy la ci ñoom yooyu yëpp nag buñ ko buñ ko dee xool gis naa ne euh, maanaam lu ñu war di sonnaat la daal ndax boo xoolee ba ci kon kon kon ñu ngi eh, yemale waxtaan wi fii bëggoon nañ ko eh, gën bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen kilifa yu tedd yi ñu fekk ci jataay suñu ay waajur sëriñ Basiiru ak ay doomam ci turam maa ngi jot li kàddoom gannaaw bi ma ko nuyoo jox ko cëram bi mu am ci ñun te wuut fi ay magam yépp ñu bokkal sëriñ Moomadu Asta Jaxate sëriñ bi ñu ngi lay nuyu waaw di la ñu ngi ko bokkal ñëpp di siyaar suñu kilifa yi ñu fi fekk ñu njabootu Sëriñ Tuubaa di ay sëtam ñu yàgg taxawee mbir mii yàlla barkeel ko ba mu agsi fii mu agsi te yàlla na ko romb di wéy di barki Sëriñ Tuubaa di leen ci ndokkale bu baax maa ngi dog ngànt itam ci li am tuuti mooy yeex gi agsi nekkoon rek ci yitte yoo xam ne bii gën mënu koo far waaye dafa bokk ci yitte liggéey bi rek kon ci turu sëñ Bas ak sëriñ Cheikh ma nga xam ne mooy sëriñ Cheikh jënd suñu waajur di xalifa sëriñ Mamadou Asta Jaxate ci ñu sotu ci moom ci góor yi ak ñam ko bokkal ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar xam naa fekk nañ tam ci waxtaan bi ñu njëkk a wax mel na ne ñi fi toog ñépp kenn kuñ ci joxoon kàddu mel na ne lii may wax man nga koo wax ci turu famille bi pour njaboot gi yépp ba tax na euh, barkeelu jëmm ju tedd jooju ak liggéey bu sell bi mu liggéeyal Sëriñ Tuubaa ba li ci am yépp am kon bu ngeen jëlee bis bu tey nii tudde ko ko njabootu sëriñ mu rasta day ñi cay góor ak ñi jigéen seen xol sedd na buy buy buy buy ndax ak taalibe rek moom la sëriñ mu tax seen maam yi di seen maam doon xeeñtu ba li am yépp am ndax koo xam ne ci gàttal euh, bi muy jox boppam sëriñ Tuubaa ci ni ko taarix waxe euh, ba mu koy joxi boppam daf ko ne woon jébbal naa la sama bopp jébbal ga yëmu ca waaye ak lu ma jur ak lu ma juragul loolu defe naa kenn musta wax jaayante gu féete googu kaw Sëriñ Tuubaa mel na ne nangul na ko ko te saahir si wane na ko ba moom sëñ bee ko xam waaye bokk na ci nangu saayir si la ci jëkk mooy jébbal naa la sama bopp li ma jur ak li ma juragul te sëriñ Modou Asta ba mu waxee loolu sëriñ bi ba ni fi bàyyi ko kenn taggiwu ko doomam kon nangul na ko te am ñoo xam ne ñëwaguñu àddina loolu bokk na ci jagle yi sëñ bi saayir ci moom bi mu koy jébbal boppam itam ci li ñëpp xam kam ko loreen tëloon te ñëpp xam ko ñu am lu ñu waxante woon kenn ku ci nekk fas ak sa moroom kóllëre ba lépp loo gis nga yëgoo ci ak sa moroom ba kooka ñëwee jaayanteeg sëriñ bi dellu ba ko sëriñ Modou sa yëgee ci ni ko ñëpp xame mooy seen diggante am na diggante bu yàgg boo xam ne saafonte sax amu ci waxu mag di seq leneen ba ko bokk yi yëgee laaj ca lumu bañ ko leeralee këmala leen ngir ñun loolu dañ ciy jàngaat lu bari ndax coloré ndekete day dem ba ci pas-pas ba bokk yi doxee ca diggante ba ba ak juboo war a am wala gindi ko daf ko ne ko yow kat dañoo jaayante woon nga dem joxe sa bopp moo taxoon te kóllëre gi loolu bokkoon na ci mu mel ne kooku daf ko delloo tontu ne ko dañuy ànd dem ko li ma gis boo ko gisee ba la doyee nga def ni man jëbbul bu la doyut ma bàyyi fekk si la kon muhaahada dafay mel ni ci pas-pas sax day dafay daw ba ci loolu ba ñu ñëwee fi sëriñ bi mu mel ne suñ mu das daf ne kam àndaloon kii ma gis day kenn du ko jox sa bopp di deseel dara ndax li muy wax ci alxuraan di ko wax ci yonent bi di ko wax ci xam-xam sama nopp mosu koo dégg te am na lu mu def ci sama xol ñaareel ba itam këram gii ni mu toll ëttam bii ni mu yaatoo ma yendu fi ba jant bi so te gisuma ku ma solli dal ku dunditu yàlla mënoo loolu kon kii du ko ñuy jox sa bopp di dese dara sëriñ bi bokk na ci jagleel ya te ba mu koy delloo yewi ko nee na ko day jébbal nga ma sa bopp ak sa lépp waaye na nga xam ne bi kiy ñëw day dara desul ci yow ci feesaay akub diisaay waaye dinaa def ci yow loo fi ëndaale wutoon loolu xel daj na ko ba tege na ci nopp gis na ba tax na ay jaglew ñu njëkk wax wax nañ ko diggam ak sëriñ bi leer na waaye nag ñun ñi nga xam ne noo ko bokk bokk te yàlla def itam ci askan wi yaatu lool ñi ci sant jaxate ñi ci sant Sylla ñi ci sant Touré ñi ci sant Diané ñi ci sant ñépp te bokku ci Sëñ Tuubaa jagleel ñu lu nu jomb ndax li ci sëtoo ba noppi di sëriñ bi loolu ñu dale ko koo ñu sant yàlla ci noonu te bañ koo def muy lu ñuy puukaréewu bañ koo def lu ñuy damoo xam ne jagleel sëñ bi la ak lam ko ne woon dinaa def ci yow loo fi àndaalewul ñu jàpp taalibe gi te fonk ko te xam ne moo nuy jariñ ëllëg moo nuy jariñ tey ci suñ digg ak sëriñ bi ba tax na ci turu sëriñ Bachir ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di dolli fedd li ak laxasaay ci suñ digg ak yéen dolli fedd li kóllëre ak bokkoo ci suñ diggante ñi ñu bokkal askan wi loolu daal mooy li nga xam ne ci gàttal maa ngi koy jot li ci turam ak ci turu njaboot gi yépp ñu ngi ñaan yàlla lii ba a nekk suñu mujj daje ñu daje ko fi ay ati at ci barke sëriñ tubaa seen maam ak barkeelu sëñ Modou Asta gi sëñ Touba def ci moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu جامع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسبيب والتقييم ولو مسكن الخروج من ظلام للنور وفي عنه كل من سلام وجعل بابا مسكن اتباعي جنة لا مسكن قداعي واجعله يا ربي عاب مسكني في أدنى لك وللميسني ودم داري عن الفجور والفسق والباطل في دوني وادفي الوباء والبلايا كلها